yow defe naa nga laa def yow keroog ma àbbal sa jege bi ne damay dem soirée nga bañ ngaa ko beneen bii paase nga bañ lu tax nga soxot nee naa la aw ma jot damay dem jaañ luy amoo jot jege nga àll ma dem nga ne amoo jot waaw boo ñëwee ba nga waaye bu dugg boo ñëwee gaal ma jox la man gaal instant lu ma koy doy yow sa xol moo yow maa ay gaal mais yow sa xol moo bon yow da nga soof quoi yow bu wax loolu gars yi ah, dimbale ma nga bu wax loolu defe naa nga booy yaa gën a bon mais néew la temps booy dama bëgg benn booy si décembre léegi nag <laughs> nga jox ma benn booy lax yow yow nga ma benn booy. état aw ma gel quoi. yow ma sa gel de. aw ma aw ma booy yëpp. xam nga doo dégg. waaw naa ne man état ma sa kontaan jox benn booy ma woo. ma la ko quoi. waaw état jot quoi état mënoo ko jox. woy ku bon nga quoi yow. yow léegi ko yow. Soros. Soros. Soros. Fis naka mo gaan? Aba. Yaa ngi jàmm? Maa ngi ci jàmm. Mais xam nga rek furu faraw yëpp dem gaan. Mbaalu. Sérieux, je te le jure. Ça va, yaa di temps xam nga man dama des fois mën naa toog benn journée mën naa si dem Europe. dem mhm. Belgique mhm. dem Japon dem Chine dem Angleterre dem Allemagne. toj ba benn jour mën naa sa dem si cinq pays te pépé bu ne benn une heure de temps deux minutes ci laa fay def. Mm. kon xam nga borom dara jalaat. moo taxoon man ma ñëw vacances yi far yàlla dafa ma gis la. dëgg la kay yaa ngi si jàmm waaw maa ngi si jàmm te bëggoon naa ñu feet ñu passé feet it man ak yow de. bilaay walaay loolu du ñu boole. ah mhm. léegi man li may def pour ñu gën a am kontaan ñu pour ñu gën a xamante quoi. waa jël sama numéro. non non non baax na jël sa numéro jël sa numéro. waxal. jëla. sëfën sëfën. non bindal. Mhm. sëfën sëfën. Mhm. sëfën. yuuyu. foofu rek. mooy double zero gain. five. tout. sëfën sëfën. ba mu defee seen dama ko. Ah, na mais yaa ngi mais fii daal sama gaal la ñuy man ak gaal la bëri na rek. Ah. parce que gaal yi trajet suñu kër la. xam nga sama papa dafa teel am xalaat day na xam nga lépp la ma jox. état yi dañuy état aussi. waaw waaw waaw xam naa rek gaal yi ngeen seen yëpp ah. ma gaalal yëpp maa ko moom. secteur bi fii mooy cité bi nii. ah doo dégg waaw dama koy dégg kay ah fi mooy cité bi nii loolu jaay dëgg la kay. mais nag nee na xoolal lii daje bi ça me fait plaisir. bilaay wallaay bilaay wallaay. yaa ngi si jàmm kii yaa jar nga wet sama caabi oto boobu ba tey ma toog di la xaar mënoo sama caabi oto jox ma ko kon li mu la da nga moo tax nga taxaw nii daa ne moo oto ah oto bi moo ko moom soxna Adja kii xam wuy ma kii lu mu la wax suba ba ngoon lu dul bi laa tudd waxul dëgg loolu def bu ma wook bu ma boobu dégg nga ma lu mu la wax suba ba ngoon waxul dëgg def ko sa xel nag xam nga jigéen nga may jigéen du ma la dugal ci lu ñaaw déglu li mu la wax dégg yow ku ñàkk jom nga jaay loolu quoi nii la doom la jaay xaw ñu lan may def quoi sama doom yi moom kan la daa mel ni waaw waaw man samay bët a gumba wala noonte bi la de <laughs> waa kii osé tamit tey daal xale bi la laal xale bu xonk bii xale bi wa ñàkk valeur këppkatu mbalit bii mosul xam kii lan la waaye maa ngi ñëw fekk la foofu sàjjal lu am doole non lii du ma ko reetee de damay bàyyi ba tey rek kañ mercredi waaw damay bàyyi ba jeudi prochain ma ree lu am doole. alhamdulilah <laughs> foog ma tëj sama tëj sama saak. dugg sama téléphone bëgguma dara lu may énervé. yéen a def ko ah, fan si bu ma gisee. waaw tey nañu kontaan c'est ça bi ñu yow <laughs> bi ñu yow suba ba tey maa mi ngi wër nga war a këpp mbalitu kër gi. ay eh, bu ma wokk aw diw dafa sedd suba ba tey. mbalitu koñ baa ngi kër ga nag mbalit moom sax baa ngi balbali di génn nga war a këpp mbalit suba ba tey oto mbalit bi ñëw na ba dem bu ma piis jarul nga may piis joobee ma noonu bi di nga war a këpp man xam nga ne man du ma këpp mbalit da sama loxo yi man xëy jàng lañ ma sant nga war a këpp mbalitu koñ bi jéeg jëppañ may xaar ana bi di ana bi di suba ba tey nga mi nëpp hmm. <laughs> aw ma lu may waxee mel ni soxna si yoo xam nga kii nga taxawal xam naa ko yéen lutax ngeen ñak classe sen bop ki ben muy kopp katu man ci koñ bi yow la waxal kay nga classe sa sëba non ñak classe jegew ma sax yow ay rue sax nga ma def gisa ki ben muy kopp malitu koñ bi suñu kër mo fay kopp malit yow nga wota sa robe noonu ñu da nga wota no banta non wacc nga ko gisa ki ni amul la ben njariñ ma la wax lool nak ki amul la ben njariñ yow su paafa kàlla masàllaa dangaa jongono damaa bëgg da de wori sa borom mais pas bi gis nga de beneen doomu bàjjen ma may ma sama jaam tëjal sa laam yi xanaa kii moom sa doomu maam la war na laa laaj sa sikkin bii mel ne mbobb waaye ñii xale góor yi daal tax ñu ñàkk jom yéen daal koo leen gis mu jongama rek ngeen ne ci yéen la baax yow nekkoo fi lu dul këpp kat mbali di fen naan kër yi yaa ko moom ak oto bee sax yow déglu ma dama ne ne kii ki fi jógee léegi nee na caabi otoom la ñu ne déeta waaye yow nga naan kër gi yaa ko moom di fen rek bi may ma ko naan kii da nga ko gëm booy. du tax ba gëw ma ko. boo bëggee ma wala sama passeport léegi léegi. yow may ñu suñu jaam nga naan passeport yow da nga am loo lekk ba naan passeport. dama ma génne ko. na ko dàllam yu bon yi tikkinam bu ñu jàppee kii lan laa ko war a wax xool koog beeram yu bon yi waaye kii lan laa yow ñàkkoo jom xool koog say jara yow nee nga Paris nga jógee nii ah man ba ba xam nga kañ laa gën a ba nga ne yow benn jour di nga ci dem cinq pays man boobu laa joome man yow ku la gis sax xam pour daal man maa joon ay tay góor góoru tey dañuy lañ mel ki la romb rek ñu am ci moom soxla. mais dimbali ma nga naan lan yow am wax. yaa yee yee sa beeri mooy tuye sa beeri moo dam lan la yow. sa yoon. loolu sa yoon nekk ñun ñaar yéen a yem ay jooy ba nga naan ku fi jooy. jooyoo kay war leen toog leen foofu ñu jël. lan la. nhé primi cái video trong này trời rồi đây nhắc quay lại cái này nhu Chứ mà sao không có lần, không có lần. Nó, đúng vậy, không quỳ, không quỳ. Cái đầu có lấy, hiểu cái đầu, cái nhận này, nhận, cái đầu, cái đầu. cái còn, cái giờ, cái đầu. Đi cái rồi, cái đi cái gì cái làm. cái là